grand théâtre weexoon na tàll di béer yemb ak juróomi fan ci weeru mars atum 2017 ci bés boobu le la cellule la ndakaaru bu daara sidna alayhi salaatu wassalaam amal conférence bi ñuy def at bu jot te sen kilifa Serigne Cheikh Mbacké di len koy defal. xew-xew bi nak ñu dal di ko leele soxna mëna ndoy sek mi ñe ci nguur gi ñu denk ko lepp lu jëm ci dembek dikk gi ci walu jaww ji ak tamit mbirum tourisme. muhammadu rasulullah mbolo mu kon dal di tew ci grand théâtre di sikar waye tamit boole ci alxuraanul karim ak imam Makhtar Diouf bu guy Mariama layene bool ci tamit hymne national la daara ji وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم soxna Anta Laye mooy jiite ci Ndakaaru. kàddu yi ñu fiy yëkkati yi rek lay doon ak yi ñeel ñi nga ci bi mel ndax nag boo taxawalee bés bu mel ni macha allah boo ne yow rek la ndax nga sa bopp dañ lu jàppale moo tax ñu mën a bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min alsheytaani rajim bu jëlé kàddu soxna même wona ndoy sek dal dina rafetlu jotaay bi nga xamante ne ay jëwriñ yu bari dal dinañ fa téw Amadou Ba mi ñu dénk walu finance Birima Mangara mi amé budget Youssou mi ñu dénk mbirum alphabétisation Seydou gay mi amé kàddu nguur gi Abdoul Aziz tal mi nga xamante ne nag moom yor plan Sénégal émergent nee naa leen daara ji cër bi ma fi am man may mu na ndoy mako mom amna nak cër yu bari yoo xam ne xëy na ministre bi moo ko moom mais cër bi Maimouna Ndoye moo ko moom ndax dafa jiitu cëru ministre bi lu baree baree bari moo tax muy cër yi nga xam ne moom laa gën a fonk ci bépp cër bu ma am ci senegal cër bii moom ma ko gën a may si gërëmaat nag daara ji di leen gën a ñaaxaat ci li nga xam ne moom moo ñu fi dajale di gërëmit ki nga xam ne nee naa leen lu ma nekk mu ngi ci lu mu nekk ma nekk ci muy Alaaji Macky Sall président de la république ndax sëñ Cheikh wax na ko ci avant première bi nee na lu ma moom ñoom ñoo ko moom waaye ñoom it lu ñu moom maa ko moom moo tax su may wax fii dama koy gërëm di ko sant ci li nga xam ne dafa jiitu cëri ndomba tànku ministre bi mu ma takkal ndax moom dafay xariti daara ji ba muy yónnee ci daara ji ca guy Mariama bobu ceri ministre bi ñewagul di gërëm soxnam Adja Marème fay Sall yaay daara yi yaay ndoxonem yi nga xamne mom tamit kep koy jang alquran lo dugg rek dina ci duggal loxom di gërëm premier ministre mohammed bun Abdallah jon di gërëm it ministre yi nga xamne ñom dañu def déplacement bi ñew tay fekk suñu bés bi yéen suñu kanam am na ci yoo xam ne xëy na nit ñi mbiru àddina lañ koy wax muy ay élection yu ñu jëm muy législative yu ñu jëm juillet ak présidentielle bi ñu jëm 2019 loolu yëpp nag ñuy sàkkuwaat sa ñaan nga ñaanal ñu dëkk bi dal ni mu daan dale waaye bu dalee it sama mbër daan sañ naa loolu sañ naa la ko ñaan na ma la ko daan ñaane ndax euh, saa yu ñu jëmaanee ci bés dama daan ñëw ne la sama mbër ngi nii dama bëgg nga ñaanal ma ko te soo ñaanee yàlla nangu 2012 la commencé ba léegi moo tax ma ñëwaat fi di sàkkuwaat nga ñaanal Macky Sall ñaanal gouvernement am li ñu sumba yépp yàlla nañu ci yàlla dimbali te yóbbuñu sa ak jàmm ak salam waaye nak ko xamne da nga bëgg dem xaré da nga wara nam sa ngànnaay boo ma ko mayee nag semai woo samay am di jam ak samay nit ak ñi fi nek ñep ci inscription yi ndax ku ne dama bëgg voter ëlëk té inscriro amulo carte amana bu bés ba di nga bëgg dem té do mëna dem. suñu yaakaaru bop nak amna ñu yaakaar ci ni li nga xamni maymuna mi ngi koy defal président de la république. liggéey bu rafet la bu sell bu wéeru ci loyauté mais dafa am leneen loo xam ni moo tax surtout ñu gën ñëw mooy diggante may Maymuna en tant que personne ak ñun ñi nga xam ni dañuy liggéey nag moom ci biir gouvernement bi di leen seddeel nii nit la koo xam ni ku am yar la ci biir ñi muy liggéeyandool ku ami teggin la ku fonk liggéeyam la loolu moom mën nañ ko seede ci li nga xam ni moom lañ ko giseel conseil bi nga xam ni moom la ñuy bokk ak moom ñépp naw nañ ko ci fulla ak fayda ak ni nga xamee ni noonu la fonkee liggéey bi nga xam ni moom la ko président de la république dénk ba pare nag loolu yépp li ko làmb li ko li ko ëmb te moo gën a am moo looloo ëpp solo ci lépp mooy yar ak teggin ak yët yëg nit ñi nga xam ni moom lay moom lay moom mooy ñooy liggéeyandoo ak moom ñëpp la amal jàmm ci conseil bi ñëpp la amal teraanga ci bi conseil bi te loolu su ma ñëwee ci jataay bu mel nii war naa ko seede. Serigne Cheikh Mbacké Lahi mi nga xam te ne nag jot na faa waxtaane mbirum jàmm ak kaaraange gërëm na soxna Maimouna Ndoye Seck mi ñu ràññee taxawaayam ci diine ji. Maimouna jërëjëf Maimouna jërëjëf ci diine ji Maimouna jërëjëf ci réew mi. waaye may mun a jëf ci mbokk gi ndax dara gënul neex kuy xalaat lu baax rek sa xel dem ci yow nit ñi kenn moomu leen waaye ku bëgg a def lu baax rek xel ma dem ci may mun a yàlla suturaal la nga ubbeeku ba ku ñëw nga recevoir ko ubbi sa kanam àdduna lu la waay mën a defal lu la may waaye mën a defal lu mu rëy rëy dafa am loo xam ne bu ci amul rek defalu la dara muy considération nit su la yëgul rek dara nekkatu fa yow nag yàlla daf la suturaal nga yëg ñëpp kon nag sama péete la incha allah dees na la ñaanal te itam kàddu yii may wax mu jëm ci yow du samay kàddu dama ni kaddu xalifa bi la ak njabootam ñoom ñoo mànkoo gërëm may Maymuna ndax lu sëriñ bi ne rek Maymuna ndoy mbànga ca waaye def leen yéen itam kon kon may Maymuna yàlla na nga fi yàgg waay waaye fi ibn xalifatul muslimin yemul ci gërëm soxna Maymuna ndoy Seck ñaanal na ko te sàkku na tamit ci mbooloo mi ñu dal di ko ñaanal